waaw témoignage Aminata Alla Badara Cissé ginnaaw bu ñu ko jaalee askan wi jaale ko Sénégal di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Alla Badara Cissé euh, nit la woon koo xamante ni ku baax la woon nit ku am diina la woon nit ku am valeur taalibi Serigne tubaa ndax sëriñ Abdou Khadir mooy sëriñam jaxasoo naa moom si lu baree baree bari ba ci li nga xamante ni tey mooy sargal bi ñu ma doon def ci prix ràññee nga xamante ma nekk meilleur député boobu sax génnoon na si def si ay témoignages kon tey bu fi yàlla jëlee am na naqar waaye dañuy sant yàlla mi nga xamante nii rek moom moo ko fi indi woon moo ko fi jëlaat ndax jëf jarafa joo xam jëf na ko fi ndax gis naa si moom ay qualité ak ay bañ yoo xamante mi ngi koy am yoo xam ne bu fekkoonte ni tey ji amu woon ba tey mi ngi ci wetu ki nga xam moo fi nekk waaye nag valeur am ak ni mu sàmmi ngorom ak dignitéem yaakaar naa tey bu fekkente ñàkk nañu ko dañ koy ñaanal yàlla te di ko jàlle askanu Sénégal yëpp di wan xale yi aussi ñu jàng si moom xam ne nit ki mën nga fondement dara ànd nit ki ka nga fondement mu wor la yow nga des sa ngor ak sa dignité ba yàlla di la fi jële moom si Macky saal si boppam na xool ci ki nga xamante ne moo fi Aliou Badji xam ne kenn saxu fi ndax bi ñuy fondement parti bi ñoom ñaar ñoo fi bokkoon nekk jëf ju nekk jëf na ko si jëf ju baax Macky Sall mu ngi nii tey ëllëg kenn xamul kan lay doon ndax yàlla moo ñu ko joxoon moo ko jëlaat na sàmm ci xool li nga xamante ni mooy euh, li fi am xool ay mbokkam xool ay kóllëreem xool jëf ji muy def xool ginnaawam xool ëllëgam bàyyi xel ni bis bi dana ñëw te kenn ku nekk bu ñëwee si yow da xamante ni bis bi ñëw na si yow